والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما بمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر صلى الله عليه وعلى آله المصابيح الغلى ñoo ngi tàmbale ko kàddu ci sant yàlla subhanahu wa taala di ñaan yàlla moom santal ñu boppam di julli ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu julli ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mooy si borom ba ñu moom àdduna ko moom sama Tijaani radiyallahu taala anhu ak ay xulafaawam muqaddamam ak ay taalibeem ak ay boppam barke rek yawmal qiyaama di ñaan yàlla yàlla yàlla gërëm xeet yeneen yëpp yàlla yàlla yërëm leen yàlla yàlla jéggal ñëpp jaay nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la gërëm ñëpp ci weer wu tedd yi weer wu rafet bi yu baax yi nga xamante ni incha allah ñoo ngi ñaan yàlla suñu dëddu rek muy bari suñu barka yëpp ak suñu ñaaw ci yëpp yàlla bind ñu ci listu aljana bi nga xamante ni ku ci bind dootu def ak Eiffage Solution suñu yëngu bawal bi nga xam ne suñ ci Eiffage Solution génne tabarakallahu tey nag euh, am nañu mbégte bu rëy ak constante bu rëy ak wax dëgg yàlla euh, xol bu tett encore euh, ci teewaayu suñu mag suñu sëriñ suñu kilifa suñu maître suñu lépp ci alxaaji bare njëgeen tabarakallahu moo ñëw taalal bidaay bi rafetal ko matal ko yëkkati ko ci maxaama boo xamante ni ah mënoon nañu def téeméeri jotaay duñ am daraja bu toll nii bii ñu am jiw ji yaakaar naa xol yi ni mu teewee te du dara teewaay mi rek la moo tax ñëpp seen xol eh, des baax daal di ndax moom dafa bokk ñi nga xamante ni soo ñu xoolee rek dem sa xel dem mu jóge ndax moom ñii dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñooy taxaw ko tagg di wax ci moom loo xamante ni heure bu ko amee jot dañu ëskay kon nag tabarakallahu tey euh, euh, tournée bi yëpp rafet na neex na jaar na yoon waaye yaakaar naa ni ñaari bés yi moom amul bés yu la ñu dàq mooy tey ak suba ndax tabarakallahu sunu mag yi lañu invité solennellement ngir mu ñëw bokk ak ñun sunu yëngatu yi ñu yëngatu di ko def ci xadra alaaj Muhammad Diène muy sunu tarbiya bi ñu gën sunu diggante moom di suñu appuyé ci moom waaye nag di occasion boo xamante ni ñun jeunesse bi yëpp dañ ci jàngataat ay jikkoom jàngataat ci ay jàngaleem jàngataat ci ay tettalam ngir ñun ñëpp ñu mën a euh, euh, defaru àdduna ak alaaxira kon ñoo ngi koy ñaan mu joxe ñaan ñu ubbee ko jotaay bi ñu def nan daan def tànni kàddu tey du bari tuut lay doon suñu àggale rek incha allahu ah ñu dem ci euh, Patripasyon yi Mwenye kontribisyon yi Aseksyon yi Mwenye w Aleve Mwenye manden de f Woye mwenye maradi Yon kou deno mwenye vate carrier Wonde mwenye mwenye vate carrier yi Woye mwenye abelesen mwenye Mwenye mwenye maradi Terakama mwenye mwe kanon Mwenye mwenye vate carrier Owo w aleve Vate carrier Ok yon kon comba Mwenye mwenye mwenye vate carrier mën nañu jàng fatiha alam nasrah salaatul fatiha yàlla ci juróom-ñeenti yoon ak yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam laq ci ginnaawam yàlla mu fële suñu ginnaaw yëpp dàq bi lépp ñu ragal bétti ñu ay séwal séwal ñu suba ak àdduna ak àllaaxira suñu jàmm yàlla yëpp yàlla ko yàlla nangu amiin suñu koor gi yàlla ko yàlla nangu amiin jotaay bi yàlla bu mu suñu mucc jotaay amiin الفاتحة على المشرق ثلاث الفاتحة جالس يوم يوم Thank you. aussi lii ñuy wax ne tabarakallah dafa yemoon sax mu neex muy lu wër fa tabarakallah démb ñoo ngi woon përi kaw euh, tamit ba tey jii message am boobu ak orientation yooyu muy joxe amul kenn ku bokk ci moom sa kaddu di génne ci sa gémmiñ ay jaami yàlla dina dégg ñuy jëfee wala ñuy ñàkk jëfe lu dul ñeme woo wax lu dul loolu mooy ragal leen yàlla jaamu leen yàlla topp leen yàlla fonk leen seen wéy soppante leen bëggante leen yaakaarante leen wóoluwante leen loolu mooy message bu El Hadj Momadou te wax naa leen ne leen yàlla dafa wax waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ci ay chat chat mooy ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah ñetti saat yi moo tax yéen ci yàlla Muhammad gën ñëpp waaye moo tax tamit xeetam gën xeet tuudul xeet yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen yéenay gën ci xeet ñu génne leen ci biir nit ñi aha waaye yàlla nañu yéenay gën ci xeet unité bi fii yéenay gën ci xeet ba faw xeet yéen a ngi sax di digle lu baax di tere lu bon tey gëm yàlla mu mel ni nag képp koo xamante ni bokk nga ci ñu doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa mission ci suuf du nekk lu dul digle lu baax tere lu bon sax ci ngëm yàlla waaye nag digle lu baax la tere lu bon la ak sax ci ngëm yàlla ba dañ ko jëfee comme ni di ngeen doon defee loolu mooy la ngay digle ci lu baax yaa ciy jiitu nit ñi yaa leen ciy mën la ngay tere ci adduna bi ak jamono ji ak nit ñi façon dëpp tëral bu nekk façon piège bu nekk dinañ la ci dugal waaye heure bu nga ci dugalee sa ngëm yàlla moo lay muccal te ñaar ñett yi moom yëpp adduna jamono histoire seede na ni alaaji Mouhamed jigéen amul morom digle lu baax teer lu bon ngëm yàlla bu ma tëkk alaaji Mouhamed jigéen amul morom ndax damay wax ni digle lu baax tere lu bon ak ngëm yàlla sirru la su ko yàlla defee ci sa koo waxal mu def la nga waaye su ko yàlla deful ci sa dënn mën ngaa taxaw fii wax kenn du la dégg da ni ku doon wax joo wax day jaar ci nopp day yor bi dugg ci nopp càmmoñ bi waa mu jóge ci nopp bi dem ci nopp day yor bu dee nag sirru digle lu baax tere lu bon sax ngëm yàlla dafa nekk ci yow kàddu koo yëkkati rek yàlla da koy def muy vibration bu fort buy dal ci xol doomu aadama di def seen ruux yi bala ñuy réfléchir sax ci li nga wax daal di exécuté say say ndigal bala ngay bala ñuy xam li nga wax daal di bàyyi say tere te ku tëj ak yow baa mu toog ak yow baa mu lekk ak yow baa mu naan ak yow baa mu gont ak yow baa mu suba ak yow baa mu xëy ak yow su toogee rek su delloo fa mu jóge woon dina xam ne am na lu yokk ci moom loolu yokk yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee nañu wëlu yu mooy ki nga xamante ni heure boo ko gisee sa xel dellu ci yàlla heure boo toogeeg moom sa xel dem ci àllaaxira te loolu ñëpp xamoon nañ ko ci Yàlla Muhammad yooyu ñu ci yàlla yi dañ ñoo jàngal nañu mandarga yi wëlu yu bay na mandarga yi wëlu yu bay na alquran am na lu ci gindi lu bëri ndax wëlu yu mooy ki fexee yar boppam defar boppam ba defaru ba mën a defaree qad aflaha ah man zakkaaha wa qad xaaba ah man dassaaha loolu mooy wëli mooy ki nga xamante ne dafa yar bakkanam yar boppam ba defaru ba mujj ko tax mu mën di defaree yàlla incha allah boole waaw nga xamante ni doo toogeeg ñoom defaru soo lekkeeg ñoom defaru soo naaneeg ñoom defaru soo leen bëggee defaru soo déggee seen tur sax defaru dañuy dem ba mel ni bëre topp di ànd ak yow fépp sooy waajo mooy sax mu mel ni ñoom danaan la bul def ñu waaye ñu baaxul sooy waajo def bàkkaar mel ni danaan la bul def ñu ñuy rafetul sooy waajo jub def ko yàlla xaraamal mu mel ni wëli bi danaan la déedéet bul defee nii ñuy baaxul xanaa xamoy bu subaa dañu lay xanaa xamoy nangam xanaa xamoy nangam day dem ba mel ni da ngay dund ak moom c'est ça kon am na ay tegtal yu bëri yu yàlla indi ci wilaaya ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wa lahum yaxzanun am na lu ci yàlla indi explique ko ba mu leer naññ sootu yunus boo demee fee ci ginnaaw yàlla ngay wax ne inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taxaafu aha wala taxzanu takat yéen wa abshiru biljannati allati kuntum يوعدون يين في أدنى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لو سمي يا لنا نزل من الغفور الرحيم يا لنا واو صح واو صح ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ها وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا لنا نبي سكيرة سكيرة وما يلقاها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم نتي نياري بوتاتي يو رك امي لايبو سو امي مول من كا كوربو لو بوتو كوتي خلاف لها من زكاها ولي يبت واي دو بوكي تي ني ني يا لا ذو حظ عظيم كورم شانس يو غاندي دو شانس شانس بو غاندي سو كيا دي وا موي شانس حظ القدر لي موي ديما لو خدمو ديما لو خدمو بوتي دي بولو فكاتي تي سالبا من لين man leen fii àdduna fii àdduna film bu ñu seetaan la ndax film bu ñu seetaan mën nga cee ma doo ko seetaan ndax mën ngaa changer kuuru film bi même bu dee ku góor ci nga faral wala ku jigéen ci nga faral kiñ rey dee na kiñ ci toroxal torox na na kiñ Euh, euh, euh, médical moo ngay am ay médical médical am ka ngay taxawal la xew ci film ba rek moom moo ci mën a am film yi bu koy seetaan bay jooy te ni film la film yi day am sax ay 10 ans ay 15 ans ñu soog ko indi fii avec jaay ko mu intermédiaire li ma leen bëgg a wax foofu mooy at la fii la film la joué nañ ko ba noppi képp ku nekk woon kilifa démb tey jii fii doo ko doon kilifa xam nga lan ngay doon li sunu mag seen jub jub di wax da ngay onk te yéen woo dara xam nga ñoom ñoom soo leen def ñoom li ma yéen a diir li ma fekk ba yerul dara soo ñëwee fekk mu ci biir néegam mu yuuxu di onk soo ñëwee mu yerul dara xam nga kooku rek la sonal sa bopp la fekk am na ñoo xamante ni la leen yàlla yëkkati defal leen ay cër àdduna suñu ñëwee fu ñu mën di bokk laa kër mën yu bokk ku mën di nekk seen lay waru nekk seen bàyyi ñu tee ba yàlla ci ñoom lay feeñ yàlla xam doomu aadama moo tax góor góor yëpp mu tànnal ay wéjur yu baax ak ay maam yu baax yàlla yàlla feeñ leen yaakaar naa dégg ngeen li ma bëgg wax foofu ah wala déggu leen dégg ngeen ku wax bu baax ah lu ma wax lu ma wax foofu waaw ah boo xam bu baaxoo nga ne waaw bi da nga daan indi say explication waaw c'est-à-dire que azal abat ak abadul abat moo am fii ñu nekk ñu mooy abat abadul abat mooy ëllëg ci kanamu yàlla képp nekkul sang démb laataa yàlla bind ruux yi laataa yàlla bind asamaan ak suuf bind dund ak dee soo fekk ku nga nekkee sang di kilifa fii mënoo fi am dara ba ñu ngi gis ñuy song rek xam nga léegi gis ñuy sëriñ sëriñ sol sol yooyu sëriñ di wax waxu sëriñ di def def yëpp sëriñ mais yi ñoom seen bopp xam nañu mënuñoo nekk sëriñ léegi doole mu gis dañuy xam ne ñii dañoo sonn ñii mënuñoo nekk sëriñ fekk yow ñi nekk sëriñ sax ñoo ngay daw sol leen ñoo ngay daw wax ya ñoo ngi daw façon sérieux amoon affaire bi yëpp ñoo ngi daw te du tee ñu nekk sëriñ xam nga ne dañu gis ci góor yi gis foofu xamante ni place de entraînement foo ko fekk moo ngi sangu moo ngi góor ay mayoom di sol lu nekk moo ko def mais mënul moom moo bëgg ko léegi bëgg bëgg ko dafay am nga gis ñoo xamante ni faalewuñu entraînement faalewuñu yére faalewuñu daal ay ay tëj ci doy yi fubale wala dinañ teewul duñ jëlee bal bi xam ne liñ ci war a def lu mu doon mooy ay prédisposition seen mamalaj Mouhamed yooyu yàlla na ko boole woon ci ñi nga xamante ni danañ defaloon ay prédisposition pré adamique yaay boobu yàlla bindagul aadama bindagul sax àjj aljana sawaraat asamaan ak suuf ba mu bindee ruu yi la ñu bindi ruux yoon ci yàlla Mouhamed mu mag ruu yëpp di seen kilifa cërë-cërë yi ñi ko neex ñëpp mu toppal leen ci lu ruux yoon ci yàlla Mouhamed seen waa ji nga xamante ni moom laay bëgg dugg si tellement saxaay Omar Foutiyou nee na nee na nee na billahi ku muy jéem a akkane rek yonent bi fii ci àdduna xamoo dara milaan nga mu ne yonent bi gis nga ci ësël laa gis góoram rek topp ko topp ko te xam woon ne mooy Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dégg la ko may wax ndeysaan projet damay iliman diri sax dama ay waxtaan ndeysaan nee na démb asamaan amul suuf amul ruu yonent bi lañ ko teg nii man Cheikh Omar ñu teg sama ruu nii sama ruu daal di bëgg nopp sopp ruu yonent yàlla Muhammad sax amul ci sopp kan la mu ne mu ne maa ngi leen di yàgg daal de nga xamee man Cheikh Omar loolu moo xam ne loolu moo tax mille huit cent vingt cinq Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu mu toog ba mu toog ba ñun laa ku ci nekk daa juróom ba ku ci nekk naan kees ñii naan jabar ju rafet ñii naan ji Cheikh Omar ne ma damaa bëgg a dem Makka damaa bëgg a dem Madina damaa damaa bëgg a am xam-xam bu xamante ni kenn musu koo am ci àdduna Cheikh Omar Foutiyou ñetti yooyu moo xam yëpp yàlla may na ko xam-xam bi di toog Cheikh Omar nee na suñu la ko xam-xamu àdduna yëpp mu bind ak xam-xamu l'islam yëpp mu bind ak téere yi te du ci yàlla benn xaal loolu moo am xam-xam waay xam nga léeg-léeg ñun bu waxtaan ngeen yi bala da ngay waxtaan ba jàng rek ñu ne sëñ bi waxtaan yaa tàng indi leen ko vache loo mu toog rek ñu indi vache loo rek këyit yee naaw muy jaxase parce que li ñu xam yëpp mu ngi sii ji léeg-léeg ngay waxtaan ba caal courant coupé ngay patiñu di ne ci ay sanitaire yi wax yoo xamante ni te defoo ko lu dul pour ñu gaaw indi courant baa ñu taal waxtaan bi parce que xamatoo daa ci li ngay wax sa xam-xam moo ngi mahafifi wal kutubi ilmun innama al ilmu fi fi suduri rijali téere yi ak ak ak kànnaaj moom mooy kàddu euh, euh, yi xam-xam nekk ci xam-xam moom ci xam moom ci dënnu góor yàlla yi moo tax Sofyaan kay ne euh, dënnu góor yàlla yi mu ne ñoom ñooy xabruy secret yàlla yi dëgg dënnu góor yàlla yi ñooy xabru secret yàlla yi yàlla ay secret moom ko denc ci ay sëg sëg yooyu mooy dënnu góor yàlla yi

an yakuna sadruhu masruufan mu ne dënnu waliyu dafa war a ubbeeku moo tax dama leen di wax ne leen dee leen def différence ñu baax ñi ak waliyu yi ñu baax ñu bëri nañu waaye waliyu yombul def leen attention bu baax Sénégal nag voilà Sénégal soo soo dee sax soo dee ngelaw am sax ñu ne wëli nga ngelaw te pourtant biñ météo wax na nga dee sax ñu ne wëli nga Sénégal dañoo gaaw ci wëli léeg-léeg sa mbir yi koo xamante ne àdduna am yëpp dafay caaxaan di foofu nekk ci ay musique ak yëpp yambaar yooyu yëpp ñàkk fay yooyu mu dee nga bëgg nga gis koo xamante ne day jóg ci rajo bi naan wëli nga man la yow yaa xam yaa ñàkk bopp yaa ñàkk xorom yaa ñàkk xamoo li ngay wax doo xamul luy wëli doo wax ni boobu wëli mu ne wali yu premier mandarga mooy xolam dafa war ubbeeku siru ba yàlla defoon seen ci yàlla Muhammad ubbi xolam ñetti yoon wali yu yàlla di ubbi xolam siru alam nasrah moom la yàlla def ci wali yu day ubbi dënnam ba mu fees dell da ciy jël leer kese ba mu fees dell yàlla ñu yàlla defal du ko guddal yaakaar naa ngeen dama ngeen jàpp rek ñaareel ba muy wali yu ay yakuna jismuhu makruhan mu ne koo xamante ne la jëmmam lu bare la jëmmam lu ñu sànni la jëmmam luy wéy la di dox lu muy wëri ji fu mu toll moo ngi lu ngërëmul yàlla fu mu toll moo ngi dem merum yàlla ndeysaan ñetteel ba mu ne waliyu an yakuna qalbuhu majruhan mu ne moom waliyu soo ñëwee toujours xolam day mel ni

yaa ngi toog moom di waxtaan ak moom yaakaar ni yaa ngi koy wax li a neex fekk xol baa ngay jooy moo naan kii daal yooyu kii xamul li muy wax yaa ngi fekk moo ngi ñëw nga teral ko teral ko teral ko teral la teral teral teral teral te yow moom moom ngay yërëm ndax moom naan kii daal xool ko moom àdduna rek lay wax àdduna yëpp solution la ak merguez te xamul ni lii yëpp musibaam la taw la koy yóbbu ko wax mënu bi ci def mu ne an yakuna baabu malakut lahu maftuhan mooy ñeent mooy ñeenteel bi mu ne mooy ki nga xamante ni heure bu ñu ne allahuma rek yàlla daal ne ak malaayka yi yor aajo yi fay leen li mu bëgg gaaw leen def waay ndeysaan léegi nag ñeent yi billahi wallahi yàlla dajal na ñeent yëpp laaj moom jógee seen mag moo tax bu ndox ñun wëliyu la daa daan wëliyu nga koy wax ndeysaan ndeysaan bi mooy dënnam dafa war a ubbeeku yéen ñëpp xam ngeen naa waxtaan lu yaatu ca julleekaay ma ne leen ah, sunu mag ji moo waxoon ne alaaji Moodu Njëgeen jëntewi wurus la moo du yor xol sangit la moo du am lu waay di wax moom ngay gërëm boo rek sagal ak di teral firiwoon naa ko bu noppi mooy an yakuna sadruhu masruhan xoolaa bi mu jigéen ëpp na Cees ci yaatuwaay ndeysaan yaatuwaayu xolam kenn mënu koo nattable yërmandeem kenn mënu koo nattable ñoom aay yu bari ñii ñoom ñëpp nettali nañu nettali bu wér ne ñoom bi ñu nekkee ndax suñu sa feebar aay yu mu gën lay indi ci guddi gi mu fanaane laa dàmbal boppam di la di la soxla ba ko jàpp yërmandeem demoon na ba bu koor jotee mu yónnee ay jën pour muur ndax xam nañ ko ñoom lu ñu lekk ñun daan toppatoo ay njaboot yi boppam noonu la daan toppatoo jur ga nekkoon ci biir mooy xar ya moo tax dama daan wax toujours naan xaayu alaaji muuru jigéen ak muusi alaaji muuru jigéen ak bëyi alaaji muuru jigéen ak ay nag alaaji muuru jigéen xoola du ñu rombee yeneen xay dañ leen di dóose parce que xam na ne ñoo leen gën kilifa wóor nañ leen duñu mag duñu xiif kenn du leen dóor kenn du leen torox mën nañ cee gën a guddal waaye yaakaar naa loolu bi ci def moom mooy lan yaram wi dafa war a toujours nekk lu pare ngir wut ngërëmu yàlla alaaj moo jógee dafa bokk ci wëlu yi nga xamante ni yàlla moo dafa judd rek def université jaarul ci ngaw jaarul ci bopp jaarul ci kubal jaarul ci coupé jaarul ci gertombe jaarul ci dugalaa jaarul ci lépp lu nit mu ta jaar ba mën kaa koy war mu caaxaan ja mu ta bokk musta am copain musta am copine musta am caaxaanukaay musta dem musta dem ci benn caaxaan adunaam dafa jub rek yàlla dafa muy mu ba ci démb wax naa leen démb lii wane ni aaj moom jigéen mu kàlla la parce que ku dem ci daara di jàng yi ñu jox la ay néew ngay jullee kooku lu ndogal daara daa judd rek daa di am ñaata ceeb yàlla na ci yàlla fay aaj moom jigéen ñi ñëpp wax na leen te wax naa di ko mu xàmmee nay deux heures de mos koo fekk ci laal kon yàlla moom sax na sax ci ragal yàlla ak jaam yàlla ndeysaan ay muuru jigéen waxtu mi tàkkal nga daan jullee ay muuru jigéen mu sa jiggi maanaam wóori fa ay muuru jigéen mu sa fekk allah ci xadaratu juma mooy ubbi xadara bi moo ko jëndal boppam ay muuru jigéen jikkoom yëpp ca jàkka li jëm jëm yëpp ca jàkka ñoom ñi ko xam ne suñuy mag xam na ni su xëyaan dañ julli fajar li jëm ci la wër li jëm ci yëpp defal la war a def waaye su gis baaree bu ñuy julli ci jàkka bi ma ne toog ba julli takkusaan su soo julli takkusaan ma ne toog ba julli timit su jullee ba timit ma ne toog ba wasifa su wasifa ma ne toog ba julli gee toog dellu ci këram kon yaram woowu yaram woowu ne nangul na boromam boromam nangul na yàlla kon yàlla gërëm na borom yaram wax yàlla gërëm na yaram wax ndeysaan ba ca des mooy am yakun abduhu majruhan xolam foo ko fekk dafa daan dagg di xuttiku ndax cofee bi nekk ci moom man leeru yàlla bi nekk ci moom yéen ñëpp yàggul fekke ngeen ko imam Alaaji Ahmad Baro ba mu taxawee di xutba xutbaam ba jaam yàlla yëpp dañoo mujj di jooy mu mel ni biir jumaa ja bépp moo fa am te du dara imam aas moom fàttaliku dee fàttaliku ëllëg bàmmeel fàttaliku yàlla xalaat moom la jógee bënd ba tamit di jooy moom du bi yëpp ànd ak moom di jooy ku mënta jooy ndax li imam kan moo war a jooy su génnee ay rango ñoom ñëpp dañoo war a so baax def sëriñ ba soo mënta jooy nga xotti ko gumba benn yoon mu jeex ndeysaan keroog loolu ndeysaan toog ba Euh, Touba ji mu daal ne ah waaw nañu fàttaliku suñu mbokk yi nekk ci fii waaye sëñ yi lay wax de bisu tabax ci waaye lii soog bii di neex neex yi yële yële rafet rafet moom xel mi yëpp moo ko ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan bëggul woon kuy jëw soo daan jëw da nga koy perturbé su xamee ni nga wax kuy wax ci nga su la séenee ba nga toog a toog a toog ba découragé bi def sa yoon sooy wax ci nit lu ko loo xamante ni lu dëgg ay yàq la da ngay gis kanamam na muy soppeekoo su bee ñu waree soo ñëwee du la recevoir xool nga foo ko fekk dara du ko mer loolu dul luy mer loo yàlla dara mënu koo kontaan loolu dul luy kontaan loo yàlla jaamu ci yàlla fay bañ a def nag mooy mujj bi day tànn daal ba ñëpp ñëw miskin mu ñëw Mamadou Tall am na ñoom ñi xam nañu histoire sax nag bokkul waaye ku dàq muñ alal mu amul billaahi billaahi daal wax na léegi sax yooyu kenn du ko doon ko nekk parce que wóor na ma ni du ma doon ko nekk li woon xam nga noonu lañ def bàyyi jëlaay bi def nekk doomu ñooñu doo leen di bëggee maa ngi ko wax waaye ku mënul muñ wallahi la xale danañ gudd nag boobu xamuñu ko moom lay laqatu rek nekk ci kàddu yëpp Cheikh Ahmed Tidiane rek di laqatu rek façon bu nekk jot na ko waaye mujj gi ñoom ñu ñëpp mujj nañu ci kanamam. tey sax te boobu lu leen nax rek may ay ñaari aayaat benn xadis te xamul ni ci daa jubóog yàlla su ko neexee léegi dootoo xam Fatiha day tànn boobu sax du ma ko dugg. rajo bi war ne li may bi ci des mooy an yakuna babul malakut maftuhan lahu lahu maftuhan mooy xadaratul kursi doo bañ a bañ a leen fa. ndeysaan te loolu yëpp ñëpp xam ngeen ne alal moom liggéey na àggoon na foofu waaw. sëñ Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu makki muntaqa muntaqa daaha daaha Cheikh Omar Fouti moo koy ne doom di dugal dem Cees sama tànk daal diis mu ne ko bàyyi lu xew mu ne ko xanaa xamoo ni sama am alaaji mu ndigal yàlla yéegal na ko ci maqaama bi nga xamante ne lu ñëw ci xelam yàlla def ko yàlla ko dootul mu koy ñaan dara ci àdduna lu mu dégg faju na ko donc baatin waaye ci saa yéen ñun ñu dund mu ndigal mu toog rek daal ne ah waaw yéen ni ngeen a toog ginaar bàyyi bu ñu waxee loolu billahi wallahi tallahi lu am juróom-ñaari minute lu liggéey nit am comme nga mu def fukki ginaar ñëw teg ko ci kanamam suñ toogee tuuti nga gis keneen indi ñeenti ginaar suñ toogee daal keneen indi ñaar fukki ginaar noonu la ñuy def di def noonu di def noonu ba tey mujj di séddale ginaar yi ci kër yàlla bu mu toog daa ne ah waaw waaye jëm damaa indil fromage gruyère su ko waxee nit fukki junni fromage gruyère lay jëm indi ko teg ko foofu comme laay waxaale su toogee nga di su soxla mun na xam nañ xaar yàlla yàqu nga ci traat yi li ci yëpp su nit ci ñëwee indi lim indi danaan la ñaata nga soxla woon nga ne ko ah, man de li nga soxla woon mooy juróom-ñetti junni ndax sama soxla dañ koy waayi opéré mun la waa fekk loolu ma la jox lu mu doon soo wàññee day nekk benn ñaari junni ñaari ñaari junni ñetti ñaari junni ñeenti ñaari junni muy ñaata waay quarante mille ngay nekk nag te mënul jubal da nga maa laaj ngir yàlla ma ñaan yàlla yàlla indi ne yaa ko man su ne ko man xam nga nu may def damay jël bi dugg ci biir wàññi ko daal di jël vingt mille def sama poos ñëw laalo la dix mille dix mille ci des ma yónnee lu ma fi aha noonu laay def man parce que laa toll alal moom nag na ni lii mu laaj jaam yàlla dee ko moom moom yàlla laaj yàlla jox na ko joxaat na ko jaam yàlla lu mu mën a ñaan moom yéen ñëpp dégg ngeen histoire ngi amoon fii ñu ngi boori kër Issa ravage yi yëpp ñu yóbbu kër Mamara yi boobu noonu dégg naa ñu woon ci biir jumaa yi ñu ne ko ah lakk ji de lu mu romb def na lu doom waaye keroog yéen ñëpp dégg ngeen histoire bi alaay mu wut yëre xalmaan la soloon daan ne làkk bii du ma ko booleeg sama jëmm ji du ma ci boo du ma ko booleeg suy bii du ma ci ñaan yàlla loo koy booleel mu ne sama yëf yi may yor gerte bi sax daa am wilaaya moom nag ñu ñëw mu leen ànd dëkk bi ñëw ko fii ak am dayoo fii mu jël yetam bu tedd yi rëdd ca ginnaaw jàkk ja ca ginnaaw jël yëpp rëddul kooku daa di rëdd càmmoñ bi daa jël mbëri ginnaaw jumaa ji rëdd rëdd ginnaaw bi rëdd daal di taxaw daa ne leen bu kenn génne seen i bagage soxna Ami Dia mu ngi koy nettali maam Ami Dia maam Ami Dia nee na am ñoo xamante ne dañ ne góor gi mën naa am xel mee neexul lakk bii lu mu romb def ko safara mu rëdd rëdd wii ne bu kenn dem eh ana tamit njaboot jóg leen ngeen jël seen i bagaas ak seen yére ngeen dem waaye maam Ami Dia nee na billaahi wallaahi tallaahi nee na ferñeent yi ba fa alal mu mu dul a coow nee na fa lay taxaw di tëb li alal mu mu dul a dem di lakki bagage ñooñu ak seen bagage seen seen ngeen xam nga safara suy tëb kër Mamadou yi dem ba ngeen di lakki safara soosu na doole. parce que kii bi doo ànd ak moom kii bi wóorul ko. waaw tabax loolu mooy li jëriñ ci xamante ni wóor na leen mat na kilifa mat na sëriñ yàlla na yàlla xeel yàlla yàlla yokk ay leeram yàlla ñu yàlla taas ci lii nag li ko ko may nekkul lu dul nangul yàlla jaamu yàlla te yàlla gërëm ko loolu nag radiallahu anhu wa radu anhu moom xamoon na ni way doon min allahi akbar yéen ngërëmul yàlla moom loolu lépp waaw gars yi bëri dañoo dox dañu ne waaye jaratu ko jaratu ko loolu dañ lay am alay wuudu tax mu am jot ci yaram dara jaam bàyyam day wuli di xutbu di borom maqaama di borom cër mhm. waaye ba bàyyam faatoo ci la gën a laxasaayu jaamu yàlla ñu bëri fi ne ne moo ñoo dara soxla ñu ne def nañ lépp lépp mat na ah lépp mat na waaye góorgóorlu nag góorgóorlu may doomu jiw may doomu jiw mag ñi yeneen da ngay fexe ba ku la laal niin may doomu jiw jiw bi may doomu jiw may doomu jiw mu ne fexeel ba ku la laal niin waaye doomu jiw yoo xam ne soo ko xoolee rakkal la te rakkal xale yi lay mujjee doo ko leen wala ku bokk ci alal mi mu da nga war a góorgóorlu ci alam yàlla nangu yàlla topp yàlla wéetal yàlla muy doom yi mu jur ci deret doomam jii mu jur di pas-pas yéen ñi ay doomu aadama du ngeen parce que wóor na leen wóoral yàlla ne leen ni ko njabootam ji bëggee noonu ngeen ko bëggee waaw mm-hmm. wallaahi waaw sacrifice bu mu laajoon yéen ñi ngeen def mm-hmm. waaw parce que ñoo ko bokk nen ñoo ko fekk te wóor yu noonu la wóor yu amul askan wóor yu amul askan déedéet wóor yu ki ko gëm rek la xam daan naa wax ne wóor yu mënta defar ku ko gëmul mm-hmm. waaye wóor yu mënta gaañ ku ko lo ku ko tooñul waaw boo fekk sooy ji am nañu yàlla dimbali ñun ñëpp tabaarakallaahu ah tey dañoo am dara moo tax ah mënuñu guddal te dañoo bëgg barkeelu bu baax ñu bëgg ubbi débat bi ah ngeen barkeelu mu barkeelu suñu bayee nag ah ngeen waaye mu wax ak maam alaaji ñëpp incha allah ñu bokk bépp kontaan incha allah mu suñu defaru àdduna ak àllaaxira te bu subaa incha allah noonu ngay def ci kër seen partenaire incha allah te ñu ngi ko gën incha allah. yàlla ñu allah.